mais ba fii ma toog di wax ak yow. Mhm. ñoom du Touba ci kanam moo jotagun xaalis parce que membre Touba ci kanam la fa laa bokk. maire Touba ci laa bokk at maire la dara loo xam ne état joxe gun na ko muy xaalis bu dugg gun cinquante millions yooyu ñu wax luñ wax la ceeb bi ñu wax luñ wax la. diwlin gi ñu wax luñ wax la. matelas yi luñ wax la. ah bon. Hmm? oto oto yi kiir ah, oto yi fa indi ñuy wiide oto yi fa indi ñuy wiide actuellement ne dix la. dix oto oto bu nekk boo ko calculé ñoom cinq cent mille litres la ñuy jël par jour cinq cent mille litres jëriñu dara dëkk ba na mel nañ waxante dëgg inondation bu ma saa am cent et quelques oto la ñu daan jox Touba mais lu mais je donc, tiens je tiens quand même à préciser que euh, Serigne fàllu Ndiaye bokk ci Touba ca kanam euh, nee na actuellement li état bi waxoon ministre bi li mu waxoon euh, nekk da koy indi Touba egsi na cinquante millions de dotation de carburant yi matelas yeeg tentes yi instant bi ñu ngi même ci site de recasement yi ak les donc Serigne fàllu bu Touba ca kanam mu préciser ne que li ministre bi waxoon yëpp yegsi na comme prévu comme prévu egg si. Hmm? kañ la egg si. ah.